avons un projet qui a 13 milliards de fonds en CFA. Et après, nous avons encore un projet, toujours sur bon, paquet, nous avons 30 et quelques milliards, 37 milliards euh, en CFA d'ailleurs même tay sax ñu ngi ni di waajal benen projet bo xamné mo gëna gën a yaatu sax bobu presque ay 57 milliards mun naa am sax mu dem ba milliards. de wax ne daal ñun éducation nationale ak banque mondiale yàgg nañu liggéey donc tay nak dañu doon ñëwone pour remettre matériel bu am solo may ko comme président de la république dafa wax numérique. dafa wax moderne dafa wax mathématique science SVT loolu la wax donc il fallait que ñu jéem a ci suñu école yi école élémentaire moyen et secondaire nous avons ñu phase pilote pour que nous jox le matériel pour am solo Aujourd'hui, nous ñu ngi des ay tableau interactif nous avant de nous gis quelques écoles Nous avons fait. et encore des vidéoprojecteurs pour que l'élève et l'enseignant et des ordinateurs convertibles. c'est des ordinateurs convertibles donc tablette pour les enfants Nous n'avons également ordinateur portable donc ce li am solo la en tout cas di féliciter d'abord l'équipe du PACEP boo xam ñu ngi fii ci ministère bi euh, boo xam ne ñoom ñooy liggéey ci projet bi et di féliciter également le partenaire stratégique qui est la Banque mondiale di wax ne am nañu sax projet parce que soo waxee science da ngay également ci suñu lycée non seulement dañu war a matériel bu mel mais ñu ngi nii di jéem installer lu bees mooy président de la République nee na nañu indiwaat li wax et avec la Banque mondiale également dinañu installer deux lycées yoo xam ne ñu ngi ci Sédhiou ñu ngi également ci Kaffrine ay sciences, la science et également plus de 1200 élèves ñaari établissement donc nous avons na que suñu en tout cas ak banque mondiale du avons commencé nous ngi en tout cas solo De leen féliciter de leen remercier